ñu jàpp ne kër yi amoon nañ ñeen fukk tey ñu ngi fay juróom fukk ñii liggéey ci tool yi borom usine ndox yi ak boulanger yi ñii amoon nen ñaar fukk ñu ngi fay léegi ñeen fukk ñii amoon nen ñeen fukk ñu ngi fay léegi juróom-ñaar fukk ñu jàpp ne ñooñu noon nga xam ne tey dañuy participer ci liy jëmal économie dëkk bi kanam dañ leen war a accompagner et non leen te ak tarif yi ñu tegal ñu munta dem te duñ ci génn am exonération yoo xam ne mu am exonération yoo xam ne defaloon nañ ko kër yi nga xam ne amoon na daara defaloon nañ ko école yi defaloon nañ ko jàkka yi defaloon nañ ko jumaa yi loolu it ñu dind ko te ñooñu amul kenn koo xam ne mooy porté volontaire ay biens yoo xam ne ni communauté bi ñoo ko moom ñëpp yem si tey jii nii amuñu doole pour fay yenn yooyu ñu teg loolu seen kaw dañuy wax ne nañ delloo ñuy wax ne ñuy wax ne Flexo

ñu reconnaître ñu Flex O amul kenn kuy liggéey ak Flex O tey ku nekk sous contrat bu war a tax mu indi ñu facture ñu jël ko wala bu war a tax mu ñëw taxaw suñu kër pour facture pour couper amul tey Flex O jaarul ci démarche bu mu waroon a jaar ba tax tey mu am sañ-sañ pour ñëw dugg suñu kër yi couper suñu ndox yi wala jox ñu facture. beneen bi mooy ki ñu interpellé waxoon nañ ko dañ koy waxaat ginnaaw bu ñu amalee dajee barki démb. sous préfet moo ko doon présider le maire nekkoon fa directeur OFOR nekkoon fa directeur Flex O nekkoon fa ak askanu Kër Madiabel délégué yeeg ñëpp teewoon fa. question yi nga xam daf nous Nous te jaaxal Nous devons nous Nous dégager Nous responsabilité ko nga nous état Nous état nous wax ko Kër nous dafa Nous Kër nous mënatul Kër Nous bëggul nous Nous facture Nous décembre bi Nous du fay facture na facture